cant gi nga xam ne at mu jot da koy amal di sant Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ne moom mooy wasilaam waaye gàttandoo ko bis bi nga xam ne moom la ñuy dajale àddiye Daaru Salaam bi ñu naan ko bisub yeeslu bi di bis biit bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ni moo tàmbali woon àddiye ji at mu jot nag buñ koy waajal Serigne Mbacke Dieye da koy gàttandoo ak cant gu mag goo xam ne da koy jagleel Serigne Modou waaye gàttandoo ko bisub àddiye boobule ren jii nag cant gi ñu ngi ko amal bisub alxamis dëppoo woon nag le 5 janvier 2023 ñu amalee ko woon ci gaawaan gi nga xam ni moom moo nekkee ci Mbàkke di bis boo xam ne bu ñu xëyee daañu fa amal njàngum alxuraanul karim njàngum xasida ay ziyaara ak i yu yaatoo yaatu yoo xam ni moom la ñuy jagleel mbooleem taalibe yi nga xam ne ak kilifa yi fay teew di boo xam ne kilifa yu bëree bëri dañuy bàyyi fu ne ñëw ànd ak sëriñ Mbàkke Jéey bis bi nga xam ne moom lay sante sëriñ Modou Rokhaya bis bi nag da koy waajal wàccaay wu am solo ba tax na at mu nekk dana ci def kéemtalaay kàttanam bala nga xam ne moom la defoon daaw ren ji mu gën koo fawxa loolee nag nag ren jii ci atum 2023 bi cant gi kawe nañ njortu mbooleem ñi nga xam ne teewoon nañ fa ci yitte ak farlu ak bernde yoo xam ne lépp amal nañ ko ci bisub cant gi amal nañ fa it ay waxtaan yu yaatu ay njàngum xasida ak yeneen yoo xamante ni moom moo aajowu ci bés bi kon bokk ñu ànd ak yéen ci cant gi nga xam ni Serigne Mbacke Dieye moom la doon amal di ci sant Serigne Modou Rokhaya waaye di ko waajale bisub àddiya Daaru Salaam édition 2023 bi. day gën sunu xol it day gën a sedd bu baax nag wax dëgg yàlla ndax sëñ sii di léegi la fi jóge ak mboolem njaboot gi ci des ñëpp kenn ku ne nii nga def lañ def kon Mbàkke ñun ku la xam-xam la ci jataayub sëñ Tuubaa moom ku la ci woowu ku ne gis ndax du du barab yëpp rek noonu la koy defee ndax Daaru Salaam moom ku ne xam ne moom lu baax rek moo leen yitteel ak ku tege ci saatam sàqim sëriñ nag yàlla daa dogal moom jataay bi nga woote ko am ci ndigal Daaru Salaam gépp ànd ko yow bokk ak yow bis bi ndax ki nga koy defal day day day day kenn ci ñëpp di waajur ci ñëpp loolu moo tax boo wootee dëkk bépp lay wuy si moom jëmm ji rek ku ne xam na ne moom jataayu sëriñ moom boo ko ci wooye mu sawar ci waaye rawatina na nga woote sëriñ Modou Rokhaya kon daa mel ne bis bi moom nga ko defal kon sëriñ bi noo ngi lay ñaanal yàlla saw fan gudd lool yàlla yàlla yàggal taxawaay bi ci barkeb sëñ Touba ndax bis bi tey sëñ Abdou moom lañ ko tuddee kon yaakaar naa bis sëriñ yàgg na koo yaatal jàpp njaboot ak sëñ gaan gi sëñ Modou Mamoun di di leen ci tudd di leen ci ñaanal loolu rek mooy la am solo te loolu rek lañ desal mag ña ndax liggéey bii lu fi jàgg lépp mag ña la kon bu ndee ba di leen fàttaliku loolu am solo la rawatina nga tuddee ko jàmbaar ji nga xam ne ku ne xam ne ab pas-pasam ci yoon bi koo xam ne moom liggéey liggéeyal sëñ Tuubaa ba wàcc ko xam si ñëpp xam ne ci loolu la jeexee tàkk kon yaakaar naa ne ko tuddee tuddee nga ko Daaru Salaam ba léegi ñëpp nga ko tuddee kenn ko ne rek xam na ne bis bi moom bisama te moom mii wane na loolee nag tey jii ñëwaay bii mu ñëw wane na bis bi noonu noonu noonu la demee kon Mbàkke noon la ñaan yàlla saw fan gudd lool taxawaay bi yàgg lool wax dëgg yàlla ëttub xasida ak alxuraan ku ko xool xam ne yàgg nga ko caa gis ndax ñun bañ koy gis mbayeen muy ñëw ci sëñ Ibrahima Mbay laa ne yow de am nga lu jafe ndax lii nga nekk boo ji niwutul sëñ moom amul yitte yu muy doxee ci yeneen yut waaye sëñ Ibrahima ne ci alxuraan ak moo tax faaw nga am sëñ sëñ bi ko dox ci loolu am ko kon noonu lay ñaanal sa taxawaay yàgg ndax loole ak yëg la te loolu la ko waral ci yoon wa sëñ Ibrahima nekk rek moo tax bu nee sa wëlëre la nu nangu waaye ku wëlëre yow wëlëre ak alxuraan war ak sëñ Tuubaa war ak xasida yi kon yàlla yàlla guddal soo fan mbàkke te yàlla yàggal la fi lool nga yàgg fee teew ay déwéni déwén ci barkab sëñ gaawaan barkab sëñ Modou Mamoun noo ngi jégalu nag sëriñ na xolam daa sedd lool muy sant bu baax waajurum bi di ko ñaanal aw aw fanam gudd lool te mu yàgg fi lool ndax ñoom ñii lépp ñooma ñoo laxasaa yi ñoom yar leen ci lii bañ mën a def lii ndax bu leen bàyyi woon ci leneen kon yaakaar na du mën a taxawal lii kon ndokk ba ko yàlla dimbalee moom waajur wu ko teg ci siraatal mustaqim boole ko sëñ mooy roxee mu defar ko ba muy taxawal lii ànd ko ki bokkam lool mooy am solo kon noo noo ngi sàkku it bu baax barab bi nga xam ne koo defaral waajur sànc ko ci bisub sëñ mooy rox nga ñaanal ko ci waajuram mu yàgg ci barab bi lool te yàlla dolli ko ci ndax sëriñ moo ko defaral waajuram ngir bëgg mu nekk di fi liggéeyal yàlla muy sàkku na nga ñaanal ko ci sa borom defal ko sànc bu sedd guyu te mu yàgg fi lool barkeb sëñ Tuubaa lu ci dëng nu ngi ko tuub jërëjëf بران الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي بران الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أذكره ذكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقياد mu mel ne Serigne Mbacke Dieye moo leen di jaajëfal muy mbooloo bi nga xam ne nii ñoo bàyyi ko Touba Darou Salaam association boo xam ne takkul liggéeyal Seexul Xaddim mooy seen yitt di ay ndaw yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah seen bëgg ak seen ak dund lépp sëriñ bi rek moo leen yitteel ci bisi Serigne Touba yu mel nii ak ci dëkk ban dëkk di ko setal fu nu toll te yemale wuñ ko ci benn gox nag mboolem koo xam Serigne Touba yitteel na la rek boo sababee mbooloo mi boo ñëwee ñu ànd yow la. yàlla boole leen nag Serigne Mbacke Dieye ci kóllëre daaw lañ laxasaayu ñëw fii taxaw defar ko defee nu mucc ayib waaye ren bi ñu ñëwee daa gën a yokkuwaat macha allah mbooleem luñ fi togg ba doomu aadama man koo jariñoo suñuy bokk kenn jaaru ci ñoom ñi ñoo ko defar defar nu sell muy añ bi muy reer bi liggéey ko ba nga xam ne lépp loo xam ne sax doon na aw des sax soxlawuñ ci dara ngërëm a sëñ Tuubaa rek lañ sàkku si te waroon a xëy mën a wuti leneen waaye wut sëñ Tuubaa dina gën a luñ mën a wut ndax kenn ko ne xam ne ay ndaw yu yorub liggéey leen yor seen i métier waaye sëñ Tuubaa dana jare seen liggéey yëpp ànd ak jigéen ñu takku ñëw fekk si fi sëñ Mbàkke loolu nag rafet na lool noo ngi leen di bàyyi sëñ Tuubaa mi tax ngeen di liggéey yàlla na leen fay sëñ Mbàkke nag da ngeen koo lebal démb lebalaat ko tey kon moom amul seen ak fay waaye am na sëriñ Modou Rokhaya may defal bés bi mën naa fay yàlla leen fay mbooloo mi noo ngi ci darajey sëriñ Tuubaa borom guddi gi sëñ Modou Rokhaya mbooloo mi képp ku ci tab bi bokk ci yàlla na sëñ Tuubaa nga bokk ci milliardaires yi sëñ Tuubaa yi di defaree ba faw yàlla na ko sëriñ gaawaan def ak sëñ Modou Roxe sëriñ Mbàkke nag xolam sedd na ndax lii bu doon suñuy bokk ko war a def dugg ci baas bi day mit waaye da ngeen noo taxawul lépp ba dara dara kon noo ngi ñaan noonu ngeen jagale suñu mbir yëpp yàlla seen mbir yi adduna gi àllaaxira sëñ Modou ko ci barke sëñ Touba sëriñ nag sant leen bu baax gërëm na lu ci manqué nu na waaye lu ci rafet rek kàddu sëriñ Mbàkke sant na mboolem ahlu bi ñi ci bokk ñëpp rawatina nag waa waa waa waa jataay bi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat sëñ Touba yi ne sanc ànd ak sëñ Mbàkke te sëñ Touba tax yàlla neen yàlla taxaw lu ci dëng nag noonu la lu ci rafet rek sëñ Mbàkke wasalaamaaleykum rahmatullah ñoo ngi yëkkati siyaar beeg nuyoo bi teg ko ci loxoy jëwrin bu demee tegaloo ci mbooloo mi ñëw ak mi ñëw ñëpp gërëm nañ leen wasalaamaaleykum rahmatullah ñoo ngi ziarewaat baax a baax di tuub ci kàddu gi nga xam ne yàlla dogal na ni moom la ñuy yëkkati ci ci kanamu jotaay bi ñu ngi leen koy tuubal baax a baax a baax sëñ Mbàkke Jéey wax dëgg yàlla daa baax lool waaye nag cant gi nga xam ne yàlla dogal na ni moom la ñuy cant ñun ñoo ko war santaat baax a baax ndax mën naa ni tey taxawaay bi nga xam ne yàlla dogal na ko waa station Ahibahil Khadim ñëw nañ taxaw ko ci bisam bii ñàkkul ci uh, goxam bi ñoo xam ni mën nañ ko kaa defal waaye nag daa gis ay ndaw yoo xam ne yàlla dogal na ni liggéey sëriñ Touba rek moo leen ñor mu woo leen ci liggéey sëriñ Touba te ñu leen ñu ciy sawar lool ndax liggéey sëriñ Touba rek moom moo ñor kon nag dañ ni uh, ndaw bu dee day day day wër liggéey sëriñ Touba te ñu woo la ci liggéey sëriñ loo mën di jàpp da nga war a bàyyi dem wuji sëriñ tubaa te sëñ Mbacke Dieye depuis bi mu bokkee ci association Ahibahil Khadim ba léegi mën naa wax ni chaque jour ñun bu dee dañuy def fukki dërëm moom day def ñaar fukk lay def wax dëgg yàlla am ci positif am ci tamit doxin waxam doxin wu rafet la am ci tamit xalaat bu rafet kon nag wax dëgg yàlla jot na tamit heure bu ñëwee bu ñu soxlaa muy guddi muy bëccëg heure bu ñu soxlaa tamit ñu bàyyi si njiite ñëw ñëwal ko ci bisam bi san nañ ko baax a baax a baax a baax di ko gërëm tamit di ko ñaanal bisam bii nga xam ne moom lay taxaw yàlla na ko gën a man ci kàttanu suñu borom ñoo ngi koy ñaanal baax a baax a baax ñoo ngi tuub nag baax ndax dañoo mënta wax ci ci ci ci micro waaye ñoo ngi koy tuub baax baax a baax di leen ko di leen ko jéggalu di sant tamit wax dëgg yàlla ndaw ñi nga xam ni yàlla dogal na ni ñoom lañ àndal ndaxte ay ay ndaw lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla dara ñoru leen liggéey Serigne Touba rek moom moo leen ñor mën naa wax ni chaque jour heure boo leen fëggee ci liggéey Serigne Touba moo xam guddi la moo xam bëccëg la heure bu mu mën di doon boo leen fëggee rek jaral na leen ñu jóg ànd ak yow ñoo liggéey Serigne Touba te ku ne xam na ne ay ndaw yu toll nii takku bàyyi seen i yite bàyyi seen soxla ci suba ak léegi tamit loolu boo nee am na tamit jafe na lool kon tamit dañ leen di ñaanal bu baax a baax a baax fu ñu bëgg a àgg yàlla leen fa yàlla àgg àggale ci kàttanu suñu borom di ñaanal tamit ki nga xam ne yàlla dogal na ne moo nekk suñ kanam muy suñ Mor Kane doon suñ président ak soxna Aïssatou Faye ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax tamit suñu borom yokku leen ba fu ñu bëgg a àggale association bi su borom àggal leen ci kàttanu suñu borom kon nag salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Cheikh Gadiaga moom incha allahu suñ tënkee li ñuy tënk dana jàpp jot li kàddu yi sëriñ daam moom itam ànd naag ànd naag bi ku ne xam ko gis sëñ Abdoulaye ak njabootam rawatina sëriñ daam sëriñ Saliou Guettara moom itam ànd naa sëriñ Mamoun teew fi ak sëriñ Jili Ndiaye Ndiayeen ak soxna Njaxat Touré wax nañ ko léegi xam naa délégation bi ko bindee ñii daanaka bu leen limee. danañ àndaaleeg soxna yi bàyyi ko ci koñ bi yépp ànd ak soxna Maam Anta man naa am délégation dina gën a ñëw ñu man a lim ñëpp balaa ñoo juum waaye suñu Cheikh Gadiaga ñi lañ joxaguñ rek waaye am na ñu war a ñëw kon day mel ni sëriñ daam fonk na délégation bi lool fonk na darajaal gi ko sëriñ Guèye darajaale waajuram mu tedd woowu muy sëriñ Abdoulaye xam naa balaa ñu ñëw ci yónnee nu sëriñ Fallou Galas bi. daa fekk sëriñ daam fonk gi fonk bis bi seen demtu ak fonk gi fonk sëriñ géey lim darajaale seen waajur yi moo taxoon kàddoom yooyu jiitu woon kàddu yi sëñ fàllu yi ñu bëggoon koo leeral te xam nañ leeral si Abdoulaye mooy leeral si Modou Roqe rek benn la si Abdoulaye ñu tuddee ko si Abdoulaye borom dër bi la ko si biir maamu tuddee muy doomi sëñ Mouhamadou Mamoun ak soxna Aïssatou Gaye dangay wax ni sëñ Mouhamadou Mamoun yorul soxna su munta jiite jamono ñim yor ñépp seeni waajur woroomi tur lañ woroomi sant yu baax lañ woroomi jaloore lañ soxna su gay boo duggoon càllaleem ba dem kër ayib mayib dem ci côté yi waajuram juróom jigéen nga xam ne ku baax la woon moo waral bi mu si ñu mu am mii waaye seen daam la ci taawloo moo leen tuddee seen daam mii baka daalika ak soxna Astu Mbàkke mi nekkoon Dakar te ñu bari wax ne ku nuru sëñ Mouhamadou Mamoun ñett yooyu la am moom soxna Astu Gay ci ko sëñ Mouhamadou Mamoun muy sëriñ daam ak sëriñ Abdullahi mii moo ci gën a féete ndaw ak soxna Astu Mbàkke waaye li gën a yéeme bi ko sëñ Muru Maamun yoree moo ko jëlaat yóbbu ko sëñ Maamar Jaara borom saam ko sëñ Isma bu dee ko soxna Astu Mbàkke waajuru sëñ Hamidun mu yóbbu soxna Astu Gay mu dem kës borom saam ngir liggéey dafa yàlla ma ngi daan nañ ko def ma ngi daan nañ ko def ma àgg fa am fa sëriñ Cheikh Isma am fa sëriñ maam Moor ak soxna maam Xari maa fa ñett ba tey ni mu ko amee woon fii Daaru Salaam ñett la am Mbàkke Xewar kër borom Saam waaye ñett la am it Daaru Salaam kër borom Gaawaan muy soxna su baax su bari jaloore waaye doom jii di sëñ Abdoulaye it ñu koy wooyee sëñ Abdoulaye jàndum des na ñëw ci tuuru jàndum bi bi matee jàng Cheikh Mouhamadou Ba mu jox ko Serigne Assane Diané al muqaril kabir nekk si ndaaroo mag boo xam ni Serigne Cheikh Antonio ak Serigne Serigne Serigne Hamidou ak Serigne Hamdi Moustapha Serigne Bakar ñoom moo leen jàngal Assane Diané ku yéeme woon la kooku moo jàngal Serigne bi mu ko jàngaleet ku ne xam nañ Serigne Mourou Mamoune juróon na ay doom jox Serigne Hamidou Mbacke yaa ngi bokkoon na ci. sëriñ Cheikh Jaxate bokkoon na ci waaye Cheikh Abdoulaye miit sëñ Mourou Mamoun joxoon na ko magam suñ Hamidun mu koy jàng alxuraanu karim ànd naag moom xabaan ànd naag moom gaawaan bi sëñ am jàngee ba àggalit ba dem gaawaan di liggéeyal sëñ Alay sëñ Taako di ko tërbiya foofu sëñ Abdou Diallo mii nekk naag moom gaawaan kon demee ne xam-xamam ak alxuraanam génnul rek sëñ Assane Diané ak gémmi si Hamidou Mbacke mi nga xam ni ñi xamoon ñëpp nee nañ jàngalekat la woon si daara la woon bi mu jàngee ba àggalit la ko bàyyam boole si Hamidou mu ànd mu demaat gaawaan suñu du liggéeyal la si tàkku bàyyi taxam moom tam mu koy liggéeyal ñu ànd liggéey gaawaan di fa liggéey liggéey yu am solo ci sharia ak xaqiqa sharia mooy di jaamu yàlla xaqiqa mooy nekkub bi nekk am di saadix buy liggéey sëñ Tuubaa ci foofu ci gaawaan xista boobu sax ali joor na ci laa ko déggee woon waaye jàndum gi moom ci moom moo ko leeraloon bi mu ñëwee gaawaan di tërbiyewu comme gaawaan ni mu bare ay village yu ko wër ki la doon dem ba àgg ci dëkk bi ñuy wax jàndum ñu nekk ay ceddo si yëpp du àgg sanc fa fekk fa ay ceddo yu doon waar yu tumuranke woon ci wàllu diine ak islaam ak leeru seen tubaab mu àgg fa installé fa rek comme mag ñi daan def rek ñu fa installé ci la ko sëñ Hamidou Mbacke tuddee sëñ Abdou de yow yaa moom jàllu dëkk bi yaa ko moom loolu moo waral ñu koy idaafa ñu koy ñu ci moom jëmmi jàndum gi yàgg fa lool xet li jaami ci islaam ak leeru sëñ bi bu sëñ Hamidou jógee gaawaan dem fekk ko fa gis mbooloo maag ni ko di ba joxee dayoo bu rëy ak ni mu xetle jaami yàlla yi ci islaam ak ci ak taalibe si nga am lu Mbàkke moo ko njëkk tuddee si Abdou yow yaa moom jàndum mu dem ba Abdou jàndum gi yaatu kon dëkk boobu moo waral ñi idaafa turam ci jàndum ñu ngi ko tuddee si Abdoulahi moom borom Tuubaa borom dër bi di xam si mbiru maamu lool si Abdoulahi borom dër bi lañ ko la lañ ko suñu baamu tuddee mu nekkoon ku baax nag koo xam ni yàllay wax ni tilka daarul axira najcaluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ardi wala fasada wala aqibatu yàlla wax na ni góogale kër muy këru gee day jongi jox ñi nga xam ni ñoom bu nekkee ci adduna duñu wanewu dañuy simple mën a jaxasoo ku nekk di suufee di tànn dund gu ñagas ñooñu la yàlla jox àjjana ñu fi ëpp moom doonte ñaari fan laat man mii di wax jaxasoo naa ko moom bind naa ko ba tàyyi waaye ku daan tànn ak suufee la ak jaxasoo jaami yàlla yépp nu waaye mel rek mën naa jaxasoo moom xeebul kenn waaye yaatu ba ñépp mën ak am accès ci moom ñooñu nag mooy ñi nga xam ne yàlla wax na ni yowal xiyaam ñooñ lay réserver ñoom laay jox kër ga xam ni mooy aljanna mooy tilka daaru axira yàlla may ndox moo yof lool ba mën a jaxasoo ku yam loolu nag yombul mbaax yaatu na am na façon baax yoom dafa raar mbaax boo xam ni ku ne nga mën a composé loolu yombul yàlla may ndox xale yi ndaw yeeg ñi nga xam ne kadaalika seen loxo bi du seen ginnaaw ak seen loxo ga seen ginnaaw ñëpp la mënoon a jaxasoo loolu nag yombul yàlla may na ko loolu nga xam ni suñu Xamidu Mbàkke mi nga xam ne kadaalika di kilifaam la jàngal na ko daan na seere ci moom woyof gi ak maanaam bëgg lu baax gi ak tànn tànn suufee tànn suufee te loolu saa yoo wàccee yàlla yëkkati la waaye saa yoo yëkkatee sa bopp rek yàlla daal lay suufee yàlla defoon na ko muy koo xam ni yatawaar daa dana wàcce boppam fu mu toll ñu ko baax koo xam ne que dalikaat eh, ni mu mel ci taalibe yi rek noonu la meloon ci mbokkam yi boo masaan fekk jotaayam si xaamil doo nga xam ne kii ku si am wormaal la waaye moom itam ku wormaal si xaamil Mbàkke la moom laa gën a miin ci jotaayam te noonu ñi ko xam ne noonu la meloon si Modou Rokhaya mi nga xam ne moom la tuddee sëñ Modou Massam tuddee mbooleem njaboot si biir maam ngeen njaboot borom gaawaan gi tuddee leen daanaka ak njabootam wala boog. tuddee Maam Cheikh Anta ak njabootu Cheikh Mouhamadou ay ay doomam loolu jaxasoo moo waral loolu ak baax ak tànn boppam li mu tànnal ay moroomam boo xoolee muy jëm joo xam ne bu sëriñ Jéey tànnee bis bi tuddee ko ko kooku yell na lool te bari nañu xamul biographie moom woyofam ak maanaam tànnoon rek suufee mas naa wax kàddu goo xam ne moom daa tànn defar këru àllaaxira gi te defar ki defar kërug adduna kon dafa préféré tànn ixtaara yéwénal dafa tànn yéwénal kërug àllaaxiraam ci kërug addunaam daanaka wax lu baree bare kooku ku ko def ku loo gis mu bàyyi lu bare yi mën a xool ci kaw walla daana ko wax si moom jurul doom xam ni amul solo ñëpp am solo kenn ku ne ak fa ngay ak fa def waaye bokkoon na ci liggéeyam dëgg dëgg dëgg di jàngal nit ñi wàccee seen bopp ak suufe ak gée géemal liggéeyal kër géeje kër gi ñu nekk nii loolu daan liggéey ci lu baree bare ci ñi daan ferekante di ko di jaxasoo moom ba lool nag jëmmi jikko yu suufe yi bëggoon nit ki fu mu toll muy am islaam am sharia waaye am xaqiqa mooy bëgg Sëñ Tuubaa nekkof taalibe loolu ko saalikat euh, mbiram la woon te maanaam bokkoon ci ñoo xam ni sa raar la ñuy jëfandikoo li ñuy wax baatin baatin si tubaab nee na waa ju baax dëgg da daw wala bokki yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Dame Mbacké moom sëriñ Abdou Diandou Mbacké Daaru Salaam ak mbooloo mi mu àndal di njabootuk sëriñ Abdou jàndum moom cheikh mouhamadul maawun mbàkke daaru salaam sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yi mu fi fekk yépp ak bokki jullit yi te di leen siyaare ci bis bu sell bi bis bu tedd bii nga xamante ne bii dañu ko jël tuddee ko sëriñam ba waajuram wa di cheikh abdullahi Mbàkke muy bis bu màgg ci moom doon bis bu sell bis boo xamante ne bii bis bu rëy la ci moom sëriñ Mbàkke Jéey jël cër bu tol noonu tànn jëmm ju tedd ju sell ji di sëriñ Abdou Diandoum Mbàkke tuddee ko ko muy lu rëy ci moom moom sëriñ daam ak njabootuk sëriñ Abdou Diandoum gépp li ko dalee ci Cheikh Mouhamadul Roqee Mbàkke ba ci ki ci gën a nekk gone yëpp sëriñ bi ànd ak ñoom bis bi ak ay xaritam ak ay wëllëreem ak ay taalibeem ak i dëkkandoom ñëw ci bis bu sell bi nga xamante ne bii day seen bisu waajur di bis bu ñu fonk di bis bu màgg bis bu sell ci ñoom ñëwoon di siyaare si sëriñ Mbàkke Jéey ci bis bii di ko xamal ne bis bi bis bu mu fonk la bis bu rëy la ci moom xolam dafa sedd guyu ci bis bii ba tax na sëriñ bi mi ngi lay xamal ne la euh, mi ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax yaag say bokk ak say dëkkandoo ak say xarit ci bis bi nga xamante ne bii da koo tànn jëme jëmale ko ci waajuram wu sell wu tedd wa di sëriñ Abdullahi Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax di la ci gërëm ak ay rakkam ak ay xaritam ak i jegeñaaleem mu àndoon ak délégation bu am solo nag ñëwoon ci bis bi sëriñ bi lim na leen ñoom ñëpp daanaka ni jëratul ñu leen di lim xanaa di jotale ay kàddu cant rek yoo xamante ne bi cant moom munta weesu cant ah sëriñ bi nee na daal mi ngi lay sant cant goo xamante ne bi am na tàmbali. waaye amutub yamu fépp foo xamante ne bi daal ak cant dina fa yegg ah, sëriñ Mbàkke sëriñ daam nee na mi ngi la koy sant ak ay xaritam ak ay rakkam ak i àndandoom ak waajuram yu jigéen yu sell yi mu àndal di soxna maam Anta Mbàkke ak soxna Njaxat Ture nekkoon ñenn ñoo xamante ne bi ay soxna lañ woon yi doonoon soxna sëriñ Abdullahi Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Maamun sëriñ bi nee na ñoom ñëpp ñu ngi maase jël seenu can di la ko jébbal di la ñaanal bis bii lépp loo xamante ne bi yàlla suñ borom dogal na nga sàkk ko ci yàlla na nga ko amee na nga ko bëggee ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Abdou Diagne mi nga tuddee bis bi yàlla na la yàlla suñ borom téel boppam yàlla sàmm la yàlla aar la yàlla musal la ci mbooleem pexem saytaane te muccal la ci mboolem pexem saytaane def def la def defal la mbooleem ngën gi ngën ngi pay gi nga bëgg ci yow lépp loo bëgg daal ci barkeb sëriñ moo Roxe mi nga xamante ne bii moom nga yaakaar nee na yàlla na la ko yàlla defal ci barkeb sëriñ Abdou Diagne bi nga xam ne moom nga tuddee bis bi maanaam xam naa li ci sëriñ bi bëggoon a wax lépp bari na waaye daanaka ni comme sëriñ la tënk na rek ñun dañ doon jootali kàddu yu cant yoo xam ne jógee na ci sëriñ bi ñëw ci yow rek muy kàddu yoo xam ne dañ koo bëgg a gàttal ndax dafa xaw a guddi waaye euh, sëriñ Balla lépp lu mu wax ci sëriñ Abdou rek am na lu mu ci bàyyi loolu moom ñun ñuy toog xam nañ ci dara ndax ñun bi ñuy ay tu tànk ba léegi jóguñu ci sëriñ Abdou du euh, du guddi du suba du ngoon chaque jour ñu ngi ci kër sëriñ Abdou jàndum musuñu faa jóg guddi musuñu faa jóg bëccëg li ñu xam ci sëriñ bi suñ toogoon fii di ko nettali ba bët di setit du jeex waaye li ci sëriñ la wax doy na sëkk sëkk sëkk ak barke kon sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di sant mbooloo mi fi teew yépp di ñaan yàlla képp koo xamante ne bi teew nga fi yàlla na yàlla faj sa aajo ci barkeb sëriñ Abdou Diallo mi nga xam ne moo waral bis bi ndax moom kat man na kanamam man na ginnaawam loolu moom man moom am naa ci lu ma leer nañ nañ nañ nañ sëriñ Abdou man na kanamam man na ginnaawam kon nag nee na képp ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo mboolem ku fi indi tawat yàlla na ko suñ borom saafara ku fi indi jaaxle na ko suñ borom teggi yàlla suñ borom defal leen tawfeex ak xéewal yu ne gàññ ci barkeb sëriñ Abdou Diandoum xam naa ne ñu yemale foofu kàddu yi rek. lépp loo xamante ne bii maanaam jub na ci rek xam leen ne mbirum sëriñ bi la akuk baaxam lu ci dëng rek taalibe bi jottali kàddu yi la ñu xam ne dañ cee lënt rek da dina ndigal moom mu ne su def lu dul di ko jottali jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa inni auzuha bika wa surriyataha min aseytaan rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun barki seexul xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki talibe yi ñoo baax kenn ku nekk sa tur ak sa sant euh, di ziar bokki daaru salaam euh, di ziar sëñ maam Cheikh Anta ibnu sëriñ Modou Rokhaya ak mboolem njabootu sëñ Modou noonu la ñuy ziar ko xam ne bii ne teew nga ci barab bi di kilifa ak noo fi ñëwee ñu ngi lu baax ci kàddu yi nga xam ne dañ koy jottale ci sunu turu jëwriñ sëñ Modou Fall xaj naa xolom daa fees lool te moom digganteem ak soxna jaara daanaka am xëy ak am ngont rek la dara doxul ci diggante bi waaye soxna jaara moom dafa neex àndal te neex a tiitaroo di ziar baax euh, sëñ Mbàkke mi nga xam ne moom moo ko dara darajale bis bi di ñaan yàlla guddal fanam bu baax waaye daa mel ni séddi nga ko ku ko mat a sédde soxna jaara nee na mi ngi lay sant bu baax te di la dolli ay ñaan day ñaan sama borom sàmm la mu mel ni tout temps yi nga xam ne tey ñoom la soxna jaara àndal te tàggat leen bañ mel ni ñu mel doy na sëkk rek ci dara jàlle ko bis bu mel nii ci jigéen juy def lu mel nii yaakaar naa fii jamono tollu su fekkoon ne gox bu nekk am na soxna jaar jaara géey si ndiide mu mel nii muy def lu mel ni lii gone yi doon def léegi tey li bëgg li sëriñ bi bëggoon mu am sëriñ bi nag li bëggoon mooy ñépp jub te tegu ci yoon kon loolu yaakaar naa ne soxna yi war nañ ko ci yi bu baax war nañ ci def yitte yit nag ndax jigéen moom mooy magasin bi nga xam ne ci la suñ borom denc lépp lu baax lépp ci la nekk leneen it ci la nekk waaye roykaay bu mel ne soxna jaaritullah réew mu am yaakaar naa jigéen ju fa nekk war ngaa xam fi ngay teg sa tànk war ngaa xam it fi ngay dem waaye war ngaa xam ñi ngay roy te soxna jaara liggéeyal na boromam liggéey boo xam ne jàpp naa ne fu nit tollu rek wala fu nit sa aw rek ci réew mi ñu nekk boo doxee di ko dégg kon doy na sëkk ñun suñu bokki soxna yi ñu gën a xentuwaat liggéeyam soxna jaara jàmbaar jooju nga xam ne wax nañ ne fanweeri at ak ñett rek la dund indi fi mbër mu toll ni Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul muy koo xam ne buñ ko ñàkkoon Sénégal ci réew yi réew yées ci lay bokk am gi ne am seexul xaddim rekk moo nu sowe kon ki ñu liggéeyal loolu ku askanaloog moom mbaa nga dëkk moom mbaa nga dëkk ci réew mu dëkk rawatina nga dëkk ci dëkk bu mu dëkk loo góorgóorlu doyut jamono nag dafa toll foo xam ne dañ koo taaral ci melokaan yu baree bari li baaxut lañuy baaxal li baax la ñuy sikkal waaye yaakaar naa ni gone goo xam ne amagul juróomi at jekkoo alxuraan nii ka ko def ci moom war noo xam ne tëddul di nelaw kon sëñ Mbàkke yow mi jël sa bis dara jàll ko soxna maam jaara gi sindi di te mi jàngale yor daara di defar ay gone gone yi ngeen gis ci sama pegg ñu sol yu verte yi ay dongaam lañ moo leen jàngal ba ñi wàcc nañ ñii mokkal nañ ñoom ñii rek tey kuñ ci samp mën ngaa yor daara te melokaan wi soxna jaara yor moom la ñu yor ndax ci leen yar nit ku nekk ni nga bëgg mu mel danga koy taqale ku mel noonu sëriñ bi daana wax ne defar taqoo te moom amatul jot waaye daa waxoon ne sëñ Balla Fall defar naa ko ku taqoo moom defaru waaye yaakaar naa ne ndaw ñu mel nii soxna jaara gi mii kenn ku nekk war nga cee def ak roykaay man de su fekkoon ne damay jigéen te xam ko wala ma dëkk ak moom wallaahi la asim du roy kenn ku dul moom ndax doy na sëkk nag ndax soxna jaara ëpp na ci ñun kon sëñ Mbàkke soxna jaara nee na mi ngi lay sant bu baax di am mbégte mu rëy ak cofeel gu kawe defal nga ko loo xam ne xolam sedd na lool waaye barab bi nga ko defee moo gën a yéemeeti muy daaru salaam gi nga xam ne amul lu dul moom te yaakaaram jëpp nekk fi ab sëriñam bi muy liggéeyal sëñ Modou Rokhaya Diop di sangam di léppam fii la dëkk ab sëriñam sëñ maam Cheikh Anta Mbakke moom sëñ Modou di léppam di sëriñam di baayam di xaritam lool te xam naa ne xarit gi dara warul ko lu dul dund gi soxna jaar yi dund alxuraan rek ko waral loolu nag nee na moom xolam sedd na ci lool te kawe na ndax nit mësu koo defal lu gën a rëy li nga ko defal waaye def ba def jeex def ko fañ ko war a def rekk moom solo xam naa ne lim waxoon ne nan ko wax bari na lool te am na ci yéene soñoon lépp lay wax waaye nee na moom xolam dafa sedd ndax ay sëriñam rek la fekk si ay sangam rek la fekk si ay jëwrinam kese la fekk si ci tool bi kon buñ ko soññee di ko dara jaale lu mel ni bisab sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne jàmbaari Cheikhul Khadim la woon joo xam ne ku juddu tey sax xam ko yaakaar naa ne boobu cër cër bu ko féete koo amul rawatina nag ñu mal bis boo xam ne dañ ciy waajal dajale addiye yi nga xam ne moom la sëñ Mudu Maamun daan dajale di ko jëbal Seexul Xadim ba tey njabootam gi fi nekk ak mboolem njabootu maam Cheikh gi di ko dajale di ko jëbbalaat ku fi nekkal ku fi tegal Sëriñ Tuubaa yaakaar naa ne nam ko daan defee faw te kawe na njort ndax bu ko yóbbu woon ci ay millions léegi tey mu dugg milliard kon mel na ni liggéey yëpp sëriñ Modou Mamoun boobee barkeel na lool waaye nag booy ji dangay ji ci suuf su am barke booy ji dangay ji ci suuf su nangu te suufas Daaru Salaam dafa nangu ndax dafa am ngërëm te daa bokk ci pàkk yi sëriñ bi njëkk am sédde ko rakam sëñ maam si Anta muy jàmbaari seexul xaddim joo xam ne fu sëriñ bi mës a nekk ma ngi ci peggam lu sëriñ bi mësa a yittewoo sëñ Cheikh Anta defee na ko na kawe njort kon ak njabootam nii rek lañu ñu mën a soxna Jaara li mu ne nan ko wax ëpp na lii ñu wax gënoon naa mat nii ñu ko waxe waaye jàpp naa ne xolam sedd rek la def man mii di wax a yéen sama doom ji ma koy jox bi ma koy jox bi mu feree kereek ba mu feree la ko yaay mujj a gis kere ba ma koy gàddu di ko indi ci moom booba am naa ci soxna jaara xemmemteef goo xam ne bugguma woon lu dul di jigéen ba mu yar ma barke seexul xadim ndax aw doxinam ak melokaanam soxna jaara àdduna fakk ko àdduna yëngalu ko àdduna tiitalu ko xam nga ku mu teg ku mu teg bët soxna su mag soo ko fekkoon poroxaan nga xam ne soxna jaar rek lay dund kon ñoo ngi yalwaan ci bokki taalibe yi fi nekk nanu ko ñëpp ñaanalal aw fanam gudd ndax kat ku am njariñ daa mot a sama classe gii nga xam ne daanaka la jël sëñ bi rek lañ fi nekkee moom seen ak na fekk bañ fee ne daanaka mooyam waaye moom mii dafay war a yàgg ndax lii sëñ bi wax léegi lim yor ci ay jirim kenn xamul ni mu te am na ñoo xam ne kat dañoo dégg melokaanu soxna jaara rek seeni seen suñ borom yàlla dogal ñu am njaboot njaboot seeni wayjur dem rek ñu jëm jëm jokk ko te am na ñoo xam ne bañ ko ko joxee lañ fa joon am na xale yoo xam ne bu ñu leen indiwoon fii nga leen ñii kerek bañ juddoo la leen seeni bokk ja gis danga nga naan ñii ki leen yor lu muy def ci ñoom kon soxna jaara yal na la yàlla lafal cet yal na la yàlla musal ci ndog yal na la yàlla ci pakk yi ba sa jëf àgg ci li nga yéene ci soxna jaara lépp nga jëf ko euh, sëñ Mbàkke yow it ñoo ngi lay ñaanal bu baax bis bii euh, yàlla nañ ci dajeeg tawféex yi sa sang ba sëñ Mudu ya euh, ci barke maam Cheikh Anta mii fi ne yow man xam naa la bu baax jaxasoo nañ lu yàgg ci liggéey Serigne Touba biñ yoroon ci kër Serigne Touba gi waaye nga bokk ci jàmbaari Serigne Touba yi bokk ci jàmbaari maam Cheikh Anta yi di koo xam ne dangay ngay jëf te doo wax loolu selu naa ko ci yow kon ñoo ngi ñaan suñ borom sàmm la kattanal la defal la ndimbal ba bis bii fi nga bëgg mu àgg fa yépp yàlla na fa àgg te ku fi teew ak noo fi ñëwee ak yéene joo indaale lu mu rëy rëy rëy rëy. yal na la suñu borom defal lu kawe sa njot ci yéen jooje bu dee lu la doon métti yal na saafaraw ci barkeb ki ñu tudde guddi gi barkeb kam doon liggéeyal ba mu gërëm ko barkeb ki tax ñu woote bis bi barke Seexul Xadim ñoo ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp àq kaddu yi dafa daanaka jërul muy bari ndax li fi mat a wax ñi fi jaar wax na ko ñun li ñuy wax daanaka dañuy lambuti wax rek waaye ki nu wax loo moom bëggoon nañuy wax lu gën a jubli kon sëñ maam soxna maam jaara géej sindi ji dafa indaale ay teraanga yoo xam ne da koy jëbbal euh, sëñ Mbakke te wax dëgg yàlla xam naa ne bu soñoon ñépp jóg sargal ko ah ñu yëkkatil ko tur yàlla mu ñëw jébbal ko sëñ Mbakke ndax daal bëgg na lool xam naa bu amoon lu ëpp lim indi dana ko joxe xam naa bu amoon lu mu jàpp ne lii moo gën dana ko indi waaye jàpp ne lii yëg la kon soxna maam Jaara mën nga jege si أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا مكانا وأضعف جندا ويزيد الله

bismillah inni tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah barkeb Soxna Jaar assalaamu alaykum wa rahmatullah yéen mbokki julit yi fi ak mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu ak di leen ziyaar te di leen fàttali tay fàttali sama bopp li nu fi sunu borom indee te moo ñu jaamu ko qaala allahu taala wa jinna wal insa illa liya'budun sunu borom dafa ni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko loolu nag yàlla mënee su koo jaamu lu dul ñu ko ndax fa in lam taarifuuni qabla an taabuduuni te dafa mel barab yu nu war a xamloo sunu borom ba man koo jaam te mooy di daaray alquraan yi te dafa mel ni sunu réew mii di Sénégal dañuy wax ne li ëpp ci réew mii ay jullit lañu te li ëpp ci jullit ñi ay murit lañu tax Cheikhul Xadim radiyallahu taala an itteem yépp alquran la woon daana wax ni bustaani kitaabullah sama tool man mooy alquranil karim daana wax ni kullu li xayri zikri xadurusim cheikhul xadim daana wax ni bépp murit bu aji si man muy jàng alquran mi ngeen di teere waaye dafa mel ni alquran mi bariwul ay soppe da dafa mel ni sunu réew mi di Sénégal dafa am kumma am nday ak kumma amul nday kumma am nday nag ñooy école nasaraan yi ñoom lañu dooleel taxawu leen tabaxal leen ay jumtak yu mucc ayib boole koog di leen fayal seeni jàngalekat weer bu dee te lu leen naqari ñépp xam ko te buñ ko xamee taxaw ca daara nekk na ku ma amul nday kenn boolew ko si bit si di Sénégal duñ wax ba boole ko ca te duñ def ba tàgguñu ñu dëkkee duñu xeex ak dinu fitnaal ak dina xoqatal mu mel ne alquran dafa amul ay taxam te ku jaaxle ñun la ñuy woo ku faatu ñoo koy julle kuy takk say ñun la ñuy woo bu doom juddoo ñoo koy tudd tali ñépp a ci am wàll moo xam kilifa diinay wala kilifa aaday man donga daal na may laaj anu sunu wàll si mii di Sénégal xanaa nun dañoo bokk si si ñuy àq ak yelleefi doomi aadama ñaata sëriñ daara ñoo nekk ci kosa bi te kenn waxu ci ñaata daara ñoo tas ngir ñàkkub dëkkuwaay ñaata ndongo ñooy xëy di yalwaan ngir ñàkkub dund xanaa daara daa bokkul ci àq ak yelleefi sunu réew mii di Sénégal ñaata caaxaankat ñoo jël sunuy ndawi réew di leen caaxaan loo di leen dooleel di leen jox ay millions ak i téere di leen si àddina bi ngir ak bon cay daara cay daara ka weet cay daara ka weet yow ndongo daara looy xalaat gis naa ni yaa ngi toog de wiir say soxla kat laa bëgg a xam kon li la metti sunu réew mi man na maa alal kañ la fi daaray jot corom aj nañ faransa moo ñu tiim nekkum ma am nday ak jiri yow ndongo daal sunu cër si bit nee na mar ñu neewa neew saxan ñu far siñ rek ne ko bagam ndongo di jooy élève di ree état di jàng ko tere bañ daal riir di xurxuri lii nag ba kañ fi kanam lii nag ba kañ fi kanam kon sunu réew jog jan itaa pexem meexoon na lii mii texe ñeen sotti na daa di suux moo di mbëggam waaye pexem du sotti na ndax yàlla mii xëy ko fi teg fal fool li nguur yu mag quraan du giim daara du fay yàlla ko taal taalam du fay ku sànniwul matt du fay yaay mujj fay ba ne naam quraan du giim daara du fay yàlla ko taal taalam du fay ku sànniwul matt du fay yaay mujj jànkatu xasida yi kenn ku ci nekk gis na sa taxawaay ak ni nga jàppe bis bi ak yitte jiñ ci di beral cant nag sëriñ Ibrahima Mbàkke Taal mi nga xam ne euh, at mu jot mu teew bi muy ñëw nii coono la dikkee ndax yënduwul ci dëkk bi sax waaye kóllëre gum séqoon ak sëriñ Mudu Roqaya sëñ Mudu Roqaya di magam kóllëre gum séq ak sëriñ Cheikh Anta te muy waajuru sëriñ Cheikh Anta moom mii te léegi sëñ Mbàkke nee na bi muy déggante ak sëñ Cheikh Anta dana ko fi sëriñ Ibba Taal nekkee rek dana ma fa sëkk kon sëñ Ibba ñu lay ziar bu baax di rafetlu sa teewaay di la ñaanal suñu borom yàggal la te wéral bis bi nag ni ko sëñ dem tu waxee daana neex waaye ren dàqati na ci ndax ñi ñu ko duppee muy nit sëriñ Abdou Diandoum sëñ Mame la Gueye liñ ci seede leeral ko ci waxtaan wax ko ci moom doy na ci sëkk ab yóbbal ndax sëriñ Mbàkke jubluwaay bi mu am ci bis bi mu koy jarajaa tudde kenn ci kilifa yi mooy ñu fàttaliku ko ñu waxtaane ko waaye jokk ci ak mbokk muy mbooleem ñi nga xam ne ñoom la sëriñ Modou Rokhaya bokkaloon te sëriñ Abdou Diandoom bu ñu nee sëñ Modou Mamoune ne ko meññ rek kon ku ne xam na la mbokk ak sëriñ Modou Rokhaya kon mbokk yi foofu jokk na fa bu baax waaye tudde ko it ngir taxawaay bi mu amee woon moom sëriñ bi ci mbokk taxawaay moom ci taalibe yi maam la wax na ko léegi la kuy seede ci moom la ngay njëkk a seede mooy oyof lool doyadil àddina lool bàyyi xel ëllëg bi mu fi jigéen mu bàyyi fi njaboot goo xam ni bu fekkoon seen waajur suñu Abdou Diandoom mel na noonu te ak njabootam meluñu na su boobaa it ab Ablaye Mbaye beex di wax rek nee na nit bu faatoo bu armeel yi xumbee ka dem moo baax si gil diggaale bëre ñam fa bàyyee baax kon suñu Abdou Diandoom mbaax gu woon ci moom bàyyi na ko ci ay njabootam ñuy sëriñ daam ak mboolem ñi mbokkal sëriñ Abdou Diandoom yépp loolu gën a tax sëriñ Mbàkke ndax bis bi sëriñ Abdou Diandoom la koy jagleel te bi ko waxee sëriñ Cheikh Anta sëriñ Cheikh rafetlu ko lool kontaan ci lool jox ko ci ndigal itam ne ko kooku sama waajur la loolu nga def man la waroon kon def nga ko man nga ko defal kon ñu ngi njabootu Serigne Abdou jàndoom gépp ñu ngi leen di ñaanoo suñu borom yàggal leen te wéral leen damay wax ni bu fekkonte ni turandoo wi sëñ daam faneen la ko am suy dem ñun ñi ñëpp di boor boor yi dañuy fàq bokk ci délégation ndax sëriñ daam ginnaaw bu mu nekkee suñu Serigne ba noppi ngir Serigne Mourou Mamoun ma weññi waajuram dem maam Cheikh Anta dañoo bokkaat ak moom ak mbokk waaye li muy doon doon suñu sang mbokk googee dafa jël sang gi teg ko fee dundul mbokk li soxna maam antam mii nga xam ne mooy waajuram wu jigéen moom sëriñ saam soxna wax ni buñ nee sa waajur wu góor ko meññi sëñ muudu maamun sa waajur wu jigéen ko weñ meññi alaaji saam lépp di sëñ gaawaan kooko yaakaar naa kuy cëru kenn kuy cëru yaat jiitu soxna maam anta waajuram wu jigéen ak suñu waajur wu góor ñoo bokk bàyyi kon suñu sëriñ la waaye suñu doomu bàjjan la waaye baaxam ak woyofam tax na soo ko fekkee ci sunu biir ci xew ak lu mu mën a doon soo amul xeel sax man ngaa dem ba jàpp ni yow sa moroom nga nekkal te fekk sa sang nga nekkal day mel ni ñun ci wàllu mbokk ñun ñooy sangam waaye nag mbirum Serigne Touba amul mbokk mbirum Serigne Touba pas-pas la am moo tax soxna Maam Anta pas-pas boobu la ñuy ànde ak moom sëñ Gaawaan gënoon a bokk ak Serigne Touba ci ñëpp ndax sëñ Gaawaan ak sëñ Touba ñoo bokk waajuru góor sëñ Gaawaan waajuram wu jigéen di bàjjani Serigne Touba. sëriñ gaawaan di ndi jaay sëriñ Tuubaa ci wàllu mbokk waaye sëñ gaawaan daa jëloon mbokk nga jaay ko jënd ko ak taalibe ba tax ma mus naa dikkal sëriñ bi naan ko nos ma bënnal bakkan bi may sa mbaariñ sëf ma ñoo xam ne yaa di gor si maa di jàmba du ma sa doomu baay balla maam ma soxna maam anta ñun foofu la ñu àndee ja waaye mbokku dara ji ligganteetuñ ko ndax xam nañ ni yaa ñu gën maam fuuf waaye say jikko it tax na ñu nangul la ko nit mën na laa gën maam waaye ay jikkoom du la doy say nag tax doy nañu sëkk ñun mbokk yépp rafetlu nañ sa taxawaay ci suñu lu xew yaa fay njëkk teew teewal fa sa alal ba bëggoo mukk ñaar ñu de dëngoo foo toll yaa ngi wax lu rafet foo toll yaa ngi jokkale fii ba ndakaaru fu mu mën a doon ci mbokk yi lu fa mën a xew buñ la fa jiitu wuti wutit wala buñ la fa jiitoon nga fekk ñu fa ànd ko ak ñun jeex mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér barkeb sa waajuru alaaji Sam mbàkke yàlla na la aar yiir la sëriñ Abdou ba nga xam ñi tam danga nga àndoon ak moom di liggéeyal yàlla ba yàlla dogal mu jiitu ji nga des ci ëttam boobee uufal ko njabootam gi barkeb sëriñ Abdou yàlla la fekk ci ëtt boobe kon sant nañ la bu baax a baax soxna maam jaara mi nga xam ni moom lañ doon tudd léegi sëriñ Mbàkke dara jaare ko bis bi soxna maam jaara jërtuñ ciy wax dara ñaari tut tànk yii fi teew rek doy na sëkk exemple xale yi ñu bëri alxuraan diñ jàng moo leen yéem am ñoo xam ni discours bi nga xam ni moom la tut tànk bee def muy soxna maam jaara moo leen yéem waaye man li ma ci gën a yéem du loolu mooy waxtu wiñ ko defee une heure du matin daanaka jot xale bu toll ci ay juróom-benn at ak juróom-ñaari at waxtu wi ci nelaw la war a toll kooku soo ko mënee taxawloo ci pëjom mu tiim mbooloo di jàng alquran di def discours bu mel nii da ngay xam ne xale bu ñu préparé la macha allah il faut ñu xool waxtu wi ñu ko defee ndax bëri na tànk yoo xam ne tey nelaw lañ bu yàgg te ci nelaw lañ waroon a toll tey kon ñu ngi leen toqantal ci jàngal leen ci nii. jo doomi jullit lu ay atam néew néew dañ ko war a préparer ba bu màggee mën a nekk exemple bi ñu soxla ci lislaam soxna maam jaara jigéen yàgg naa jàngale jigéen yàgg naa am xam-xam soxna asta waalo waajuru soxna jaara bu sa ku ne dégg na waaye âge bi soxna jaara am di tuut tànk ndax ay atam bëriwul moo taxawoon fii léegi di jox sëriñ Mbàkke kado yi âge bi mu am jigéen ñu bari buñ ko amee cheveux naturel la ñuy xëntewoo pose ay xef la ñuy xënte woo xeesal bu weex la ñuy xënte woo waaye ala ndawtal bu foor la ñuy xënte moom mu jël yitteem def ko ci alquran jàng ak jàngale kooku exemple la bu ñu war a wan nit ñi boo amee lu baax lu xànjaru da nga koy wane ngir nit ñi mën caa roye waaye fekkee da nga am xànjar di koy yéem doo ko wan kenn su boobaa kenn du ko gis te ko luñ ñi luñ xamul mu mënuñ cee jariñ mbir boo ko amee muy njariñ da nga koy fësal wa amma bi nihmati rabbika fa haddis soxna jaara mii xéewal la goo xam ne dañ ko war a wane soxna jaara pasteefam boobu mu am moom la sëriñ bëgg a exposé fii tey ba jigéen ñi gis ko def ko ay royuwaay daf ko royuwaay boo xamante nit dañ ciy teg seen tànk xool ni kii suñ moroom la lii ñuy xënte woon lépp wan na ko ginnaaw te yóbbu luñ ko dara boo xoolee booleem lu jigéen di xënte woo tey ngir taaru soxna jaara wan na ko fa ginnaaw te yóbbuloo ko dara macha allah tey jigéen ñi ñu ci bëri ay femme démontable lañ femme taabul mooy koo xam ni boo xoolee photom ci Snap bi wala WhatsApp bi wala Facebook bi soo moytuwul sax di nga ko nopp soo ko bettee këram boo moytuwul nga yaakaar ne est-ce que ma fekkoon te wa téléphone bi ma gisoon ak femme bi ma présenté est-ce kenn ki la effectivement kenn ki la mais day nax boppam nax sa bopp weesuwul moonte lépp moonte xef moonte ay we moonte lu mën a doon ba mel moo dàq photo yoo ko exposé ko bu ñu la fekkee nga démonté yooyu kenn du la xàmmee ndax sa bopp mënu ko weesu kon jigéeni jullit day mel ni soxna jaaram yi exemple bi ñu leen di jox tey demu ki soxna jaaram mu mag ma demu ki soxna Anta Ndiaye ki soxna jaaram mii la exemple bi leer na ma ne atam mëtul rombul 30 ans te xam naa ni royukaay la boo xam ni comme nekkoon sa mbokk wala ku dib jullit te bëgg lu baax sa xol sedd na ci moom tey kuy jigéen jot naa ni bëggoon nga di moom ndax lan alquran la jël di ko jàngale te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni dafa xam alquran ba noppi non seulement xam alquran mais da caa boolewaat de xamlewaat alquran soxna jaara wax nañ fi nii mokkalal na ay xale yu bëri alquran sëñ Balla Gueye exemple la ci mokkalal na ay gone yu bëri alquran te ñoo ñëpp ay ndaw lañ ñoo xam ne seen i at bëreegul lim doon wax nag tout tànk bi ko wax léegi di wax alquran ak daara niñ ko doyee di la ci réew bi ak niñ ko ñàkk a joxe cër biñ ko war a jox bi mu ko waxee xel yépp ci état lañ dem mais état pour man numéro deux la ci daara première bi mooy yow jullit bi ba pare noo ngay xool yow loo jëriñ daara yow ba pare kenn ku nekk ñun na xalaat moom lan lay jëriñ daara moom da gis ku mel ni Kumba Njaay ñetti bekki suukar lay jënd naa yoo ko bët sam nguur ab donga daara di ko jox attanul attanul añ ba muy togg di ko jox ay doomam di ko jox borom këram mu tibb ca bool ba baax yóbbu ko ca daara ji attanu koo def lim soxlawu rek lay jox donga daara bi nga nekk jullit gis donga daara bi mu war a nga am loo ko jëndalee daal defoo ko nga nekk jullit gis sëriñ daara bi muy néew doole nga war koo jàppale defoo ko nga nekk jullit gis ni état bi nee na am na carte woo xam ne boo ko jëndee ñaar téeméer soo feebaree dem ca hôpital ba dañ lay faj ba waroon a fay juróom fukk dañu la koy xaajal ñaar fukk juróom ngay fay mu wóor la ni mën ngaa jëndal carte boobu ab donga daara mën nga koo cotiser 3500 pour mu man di faju ji ak fajoom yomb nga man ko lool te defoo ko kon ñun suñ bopp nañ xool ñun en tant que jullit lan lañ jariñ daara ba noppi dooga laaj état moom lan lay def ci daara parce que ñu bëri dañuy jël mbir mi bu xëpp ko état gis nga ñun jullit ñi bu ñu defoon la ñu war daara du soxlaal état ñaar fukk mais ñun aw des la ñuy jox daara ñu ëpp ñun aw des la ñuy jox ku ci nekk ci ñun soo yóbboo sa doom ci soxna jaara bu koy jàngal su xale bi xale bi bu xelam neexee danga naan naa ko yóbbu ci école ba kon xel mi neex na soo ko yóbboo ci école ba xel na naqari ni kon naa ko far yóbbu ci daara ja daara ja poubelle mbalit lañ ko bëgg a def bu ñuy sànniwaatee daara loolu taxu koo jóg kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya uxra min al karbi yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta xablu tabibi Serigne Touba mi yaakaar lépp alquran la xale wax na ko léegi Serigne Touba nee na man sama tool mooy alquran te ku ne xam na ne tool Serigne Touba du booy kon jàppale Serigne Touba ci alquran moo raxal tax ñu jàppale daara yi ku ne daara ji nekk sa wet lañ ca am man ko ca dee ko ca def ngir jëmmi yàlla su boobaa ñu doog a xaar état nag la muy indi su état indee daara ji dem su état indi wut daara ji dem waaye kenn dégg ni man damay croiser les bras rek état moo war def nangam état moo war def nangam alquran mustaxaar état jullit ñi ñoo daan jàppale alxuraan kon ñun jullit ñi dañ jël suñu alal def ko ci alxuraan kenn ku ne ci ñun boo faatoo bu ñu la yóbboo néegandiku bala ñu laa denc la ñuy njëkk a def mooy wàcceel la kaamil boole la suuf sa ak la ko kon nag li nga xam ne boo juddoo moo fay jiitu soo faatoo moo fay mujj loolee da ko war a fonk mooy alxuraanu karim soxna maam jaara sëriñ mi ngi lay bu baax jërëjëf fay jeexale mooy kenn ci ñu dara jaara bis bi muy bàyyi sëriñ wadd ku xam sëriñ seexanta xam nga bàyyi sëriñ wadd ku xam sëriñ Modou Rokhaya xam nga bàyyi sëriñ ku xam sëriñ Modou Baamoon xam nga bàyyi sëriñ di suñu baay boo xam ne li tax sëriñ boole ko ci bis bi di ko ci ñaanal mu yàgg fi te wér mooy dafay fam toog tey ñun ñëpp fa waroon toog tey ñun ñëpp waroon nañoo toog coodu sëriñ Seex di ko doxal ay yónneen di koy defal lépp lum bëgg bàyyi sëriñ di suñu bàyyi wuutuñu fa nekkal ñu fa kon kooku kuy kuy euh, bëgg sëriñ Cheikh war nga koo ñaanal foo toll bàyyi sëriñ dañuy ñaan aw fanam gudd lool mu wér lool ndax lépp lu sëriñ Cheikh Anta liggéeyal njabootu sëriñ Touba gi bañ ko cay naw di ko ca ñaanal moom bàyyi sëriñ ñoo ko ànd saa yu sëriñ bi gestoo gis ko ci wetam bàyyi sëriñ xamul naaj bu tàng xamul ker gu sàdd xamul day taw xamul lenn ndigal rek lay diglu saa yu sëriñ bi jotee ndigal ci ko fi nekkal sëriñ Touba bàyyi sëriñ takk na ndiggam ànd ak sëriñ ba ci ndigal loolee ba mu jeex xam ne ñu aju ci sëriñ muy fédération xidmatul man naa ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp bàyyi sëriñ moo koy doxal te mag la bu ko neexoon ni war na war na maa toll ci war a retraité màggal gii ñuy def muy CDD bi ñuy def ak chef de service yi nga xam ne ñoom la concerné yëpp bàyyi sëriñ moo koy coordonné ba lépp mën a jaar fi war a jaar kon ñu ngay ñaanal baax moo tax sëriñ di koy euh, euh, euh, ñaanal ci bis bi suñ borom yàggal ko fi lool wéral ko di sant monsieur le ministre Galoba yónnee na fi waaye mel ni yan tam bu ko jaaralee ci sunu mbokk sunu sëriñ sëñ Mourou Mamoun mi. dina ko jotali ci moom kon daal mel na ni sëriñ li mu bëgg eh, li mu wax yaatu na lool eh, mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñuy sant itam eh, mbokki commissariat yëpp police commissaire ak commandant ak ñi fi yebal ñëpp mi ngi ci turu Serigne Cheikh Anta ñu leen ki sant bu baax ndax ku ne xam na ni yàgg na jëppi ca bëccëg ba léegi ñu ngi fi teew respecté service bi lool macha allah ànd ci ak ak sawarte lool loolu itam Serigne mi ngi koy mi ngi ci sant di ci duru Serigne Cheikh Anta nga xam ni lu fi waaye def rek moom nga ko defal ñu leen ñaanal suñu borom yokk seen ay grade may leen ndam ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey parce que ku nekk ci ñun boo tëddee tala nelaw ba yàndoo soo ma nee jënd sam xar yeew ko sa gër xëy fekkaat ko fa ginnaaw yàlla police ak gendarmerie moo tax kon ñii bàyyi seen nelaw ngir ñu am jàmm ñooñu war nañ leen di ñaanal yàlla di yokk seen jàmm saa su kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëm mel ni Serigne li ñu joxoon gën naa yaatu waaye xëy na lu ci manqué rek ñu koy jéggal rek sëriñ bi mi ngi nii toog sëriñ Ibrahima Mbacke mu sëñ Ibra dar moom maam Cheikh Anta te li sëñ Cheikh Anta waxoon léegi sëñ Ibra bu fa teewee jëratul sax may ñëw teewaaleel na ma kon moom la ñuy diglu mooy joxe kàddu yi e, ñaanal ñu jàngkati xasida yi wéyal des ci liggéey bi incha allah lépp lu ki dëng nag ñu ngi koy tuub tey jéggul lu ci jub nag ñu boole ko jëmm ji rek def ko àddi yooyu sëñ gaawaan asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu wala mi sëriñ bi mu ne auzu billahi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 sëriñ bi ne yàlla ni yàlla bool defal jàmm nee lépp lu ñu fi def yàlla na ko yàlla barkeel lépp lu ñu fi ñaan it yàlla na ko yàlla nangu ki tax ñuy def bis bii yàlla na ñu defal xéewal muy sëriñ Mudu Roqaya première sëtu Serigne Gaawaan di nit ku baax ku am fulla ku am fayda ku kenn yebut ci yoonu murit ku dëggu waaye ku bëggoon it Serigne Gaawaan Serigne Gaawaan rek la bëggoon kon nag bisam moom luñ ci ñaan rek suñ borom dina ko def ndax liggéey na ko fi jëf na ko fi kon nag yal na nu yàlla taas ci barkeem ki nga xam ni moo ko fi nekkal di Serigne Cheikh di nit ku baax nit ku am jom ku am fulla ku am personnalité fu ñu tuddee Daaru Salaam rek xel yépp dem ci Serigne Cheikh ndax moo ko jëfe nag jëfal ñëpp jëfal ñëpp naa jëf ngir turam waaye lépp lu muy jëf rek sëriñ gaawaan rek la koy jëfal sëriñ gaawaan rek koy jëfal sëñ Modou Mamoun. yal na koy jëfal sëñ Modou Mamoun. mbaa sëñ Modou Roqee. Roqee. waaye sëñ gaawaan rek. sëñ gaawaan nag gis na loolu. sëñ gaawaan nag gis na loolu. moo tax ñun ñëpp. naw nañ ko ci. fonk nañ koy te ñu ngi ko ci ñaanal ma li mu bëgg nag moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal ne li ci am solo nag mooy sëriñ Mbàkke Jéey mii lii mu def darib sag di lu rafet te lu baax moom nee lii sëriñ Mbacke di def. yàlla rek la ciy wut. yàlla ak yonent bi. ak Serigne Touba. maam Cheikh Anta. ak sëñ Modou Mamoun. ak Serigne Modou Roqeer. ak Serigne Cheikh mi ko fi nekkal. nee moo tax mu am ci fulla. am ci fayda. caaxaanewu ko. lim ci bëgg nag. mooy ko xam ak njabootam ak i mbokkam yàlla nañ ko ci yàlla defal sëriñ bi ne li ci am solo mooy nekk ci lu baax baax rek moo am solo te xam ni àddina moom du dara kenn dëkku fi ku fi ñëw tamit gan nga te dangay ñibbiwaat ku xam loolu nag ànd ak yiw ak yar ak yar ak i teggin fa ngay gane moom fa ngay lu baax rek ki nga fa war a wane moo tax ñun ñépp ci lu baax rek lañu war a nekk kon nag bis bi ñu ngi tuddee ko itam seen mag di ku baax nee na boole noppit mu yore sinub jigéen ñu bokk lépp nee na ginnaaw sëñ Ibra Alaaji Saam moo fi doon sëñ gaawaan kon nag mbokk gi benn la soxna Mante moom képp ku ko xam xam ne nit ku baax la ku bëgg lu baax la ku bëgg mbokk la ñépp mën nañ koo seede ci yoon wi kon nag ñu ngi koy sant bu baax moom itam leneen leneen li mu déggat ki soxna jaara muy lum lu lool ndax moom mii lu baax rek la bëgg te ne ku ko xam xam ne lu baax rek lay jëf nee na daara alxuraan ya nekk Ndakaaru ca Parcelles Assainies Serigne Modou Gueye jiite leen am na at moo xam ni na ko dajaleel ma daara yëpp dama ne ko dajaleel ma daara yëpp ci jumaay murit ji ci jumaay murit ji ci unité 13 ci unité 13 ba bi mu ñëwee daara na daara yëpp dañ leen a consulté daara yi pompé daara yi defal leen ndimbal. keroog keroog. Issa Mbaye Samb ministre de la santé la woon. moo nekkoon ministre de la santé. bi mu gisee xale yi. bi mu gisee xale yi. ni ñu mel. ak seen yaram. ak seen yaram. dafa daal di jooy. dafa médecin yi. woo médecin ni nañ leen traité. xale yi. sëñ Njaga Silla. nee na booba sëriñ Njaga Silla. mu daaru salaam mi. fekke na ko kon ñun daara daara dañ ko fonk dañ koo fonk soxna si ma woo léegi nee na soxna sii ko doon woo léegi ay soldaar maam jaara lañ leen tuddee ay soldaar soxna jaara lañ leen tuddee soo demee ca barabu maam jaara ba soo demee ca ñooy joxe lekk yi ka ko jiite sama soxna soxnaam la moom mii kon nag lu baax moom lu def ku koy def rek yàlla moo lay dimbali kon soxna jaara li ñu seede ci yow na gën a am jom gën a takkuwaat xam ne liggéey lu baax moom yombul kon yoon wi nga jël am fulla am fayda gëm ko yàlla dina la ci jàppale te jàppale yàlla rek moo wóor dara wóoru dudul yàlla yàlla nag moo jara doyloo moo jara yaakaar moo jara wéeru ndax mooy boroom lépp ku ko bàyyee sa bopp mu téye la kon nag nu xam loolu yàlla nag moo séddale te yamalewut ne ndax boo xoolee di nga xoolee di nga dugg ci kër gis ñu bokk ndey ak bàyyi ñu bokk la ñu bokk bàyyi. da nga gis ak wuute nekk seen biir. nee na li muy jël rek. njabootu Serigne Touba. mooy njabootu Serigne Touba. Serigne Touba am na mag. Serigne am na mag. am nay rak. rak. waaye li ko yàlla defal. waaye li yàlla defal. defalu koy magam. defalu koy magam. defalu koy rakkam. defalu koy nag. loolu nag. Serigne Touba. du ki Serigne Touba. yàlla la ca yàlla la. suñ borom moo séddalee noonu. kon jaam nekk. na nangu ndogal bi ndax nit day man ngaa juddu dee nit man ngeen a bokk ndey ak baay mu wér yow nga wéradi mu am wërsëg amoo wërsëg mu am xam-xam amoo xam-xam mu rafet mu rafet nga ñaaw nga loolu yépp ku ko def suñ borom moo séddalee noonu ku xam loolu nag di nga nangu ndogal bi xam ni yàllaay dogal jàmm bu ko xam dinga mucc tey ak ëllëg te ku xam ne bis bi day dina ñëw bis penc dina ñëw kenn ku nekk xam na ni bi fi jógee yaa nga barsàq taxawaay bi dina am dina am jéggi siraat dina am waaye toogaay bu yàgg ba nag. waaye toogaay bu yàgg ba nag. mooy kawsara. mooy kawsara. kawsara fa la ñuy toogee. kawsara fa la ñuy toogee. kenn ku nekk nag. kenn ku nekk nag. xam fa nga jëm. kenn doo xam fa nga jëm. ñi jàll nag. ñi jàll nag. ah man ngaa jéggi siraat jàll. man ngaa jéggi siraat jàll. daal di mucc. yàlla man na koo def. yàlla mën na waaye mën ngaa toog kawsara nag. nag. di xalaat foo jëm. di xalaat foo jëm. waaye ku nekk kenn ku nekk kenn ku nekk. war naa sàkku ajjana ju wóor a wóor ajjana ju dëgër dëgër jëf ji nag foofa lay feeñee kon nit ku ne war nay ñaan jàmm ndax jàmm bu amee ñaan njéggal ñaan barke ñaan yërmande ba ca kon nag loolu yépp ci kaw sara fa ngay toogee war a jëm àjjana la la fay fekk kon yàlla nu yàlla jàppale ci yërmandeem ci bañ ñoo ci sunuy jëf kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax li sëñ Mbàkke mii nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal sëñ bi nee na la ni dina ko wax ci turu Serigne ndax Serigne Cheikh day doom ju baax su ko neexoon mu ni moo ko mag moom ëppi taalibe waaye gisul loolu cër bi la gis fu ko fekk jox na ko cëru baay su jot jël alalam jox ko ko loolu yépp li ko waral ab yar la ak nangu ndogal bi xam ni moom mii waajur Serigne Cheikh la lu mu nekk rek dana ca nekk ak moom moo tax bis bi mu def ko muy bisu boppam kon na ngeen xam ni lu fi waay ñaan rek ak lu fi waay bëgg darajee Serigne Cheikh Anta moomu man na ko te yàlla na ko ci yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatullah kon Serigne bi day ñaan su ko defee ñu xasida yi incha allah Ibrahima Mbacke yàlla nga fi yàgg sëñ Ndam ak bokk yëpp yàlla nañ fekkee déwén amin kenn bañ a manqué barke sëñ Touba amin amin fas leen ci li ngeen bëgg lu waaye ñaan mën nga fajul aajo shaayir baatinam amin amin amin barke sëñ Touba yàlla nañ ko fekkaati déwén